alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah Seydi Mawlaya Cheikh Laaji Ahmed cheikhun ya'laf wa yu'laf wa man ma'akum min al-abnaa wal ahbaab wa min al-mu'miniin jami'an asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jàngal ba si limara ak la ca aju. ba nee ba nee nañ ñu ma ma xam ma alxuraan yi. bismillahi sos na ma samay wax Ahmad da koy waxee. moom mii moo ma ko wax ndax bëri yow. jaar la ak ma juróor ak la ca aju. maa wax nag ne bu fekkee jotaayu naxaw. te xamoo ci dara mu ngi mel ni kuy seppaatu pepp wala kuy naan ñaxam pont moo tax bis bu jaar la ak bajur bu sori waaye islam dafa garaaw xam nga ku toog nga ne ko baax man wax nañ ma ne ma isa jaar nasrullahi def naa ci temps pour wax ko ndax jaarata laa wax jaarata nasrullahi wax dafa jafe man sama sama taaw bi muy jéem wax tuggul la ko doon wax ma ne ko doom tugg boo gën a jafe kudd waaye moo tax gannaaw gi ma ne xura jaarante boo gën a jafe isaa jaar ñu di la tonqul di la jàngal naan la baas yi ba bés ñu ne la bismillahi bismillahi jaaraak ba dimu rek laa ci xaju di dox di dox ba sol garab bu sol garab bu bu l'islam l'islam rek am l'islam la barki démb dimanche ji wax naa ci Dakar ci jotaay bu mel nii ma ne mbooloo mi yëpp teew ku ci laajoon xataa ñu jàng tabax ne monsieur la. monsieur le maire constitution Sénégal ñaata article la moom sax otaama xam na ko waaye mbooloo mi fu nii su ma laajoon xam constitution Sénégal bi ñaata article la ñu ngi seen loxo du bëri su ma woon nag Imam Hassan alxuraan ñaata saar la. xale bu ndaw bi kañ léegi daf koo tari bu jigéen bi Diaw di conférence bi rëy rëy rëy rëy rëy léegi mu ne ko constitution Sénégal ñaata article ne ko woon ay yëpp ñaata la moo xam ko. ne ko woon jas gi ci alxuraan ñaata la mu ne la fëleeg gàtt fëleeg xam constitution bi ko ko gisaguma juge bu mokkal constitution ci Sénégal gisaguma ko gisaguma avocat bu ko mokkal sëñ bi nag léegi nee na article quatre-vingt mais boo ko bëggoon a tëral léegi problème am. waaw. conférence fii ci Diourbel benn waay bu conférence ba pare. waxal ko am lu muy laaj ñëwal. benn waay di xuus nit ñi di ko téye mu wax mu laaj li rek dañ ne ku bëgg laaj rek ñëwal loolu laaj rek bi tontu waaye ñu xuus baag si na ko sëriñ bi bu teelu sàngara ñaata lay jar te ñu ne awsu billah maa ma reyal la loolu de xaw ma mu ne ko yow xamul la dara day wax nit ñi te ñu ne ko loolu moom xaw mu ne mbooloo mi jóg leen dem teel sàngara sax bu léegi am ko ne ko kii de doomu bàyyi ñes la waaye ku baax la mu ne ko matu ko doomu bàyyi ñes la rek yem ca <laughs> waaw lépp ak saydu kullu fi fara waaye nag bàyyi daana wax ne lépp luñ nekkee rek yiw na ci yiw yi maam la xasanatu min xasanaati la ma wax lii waxuma ci El Hadj wax ndax góor gi def na ko doom kaay ñu yëkkati saako bi doom yi ñëw ne cas bay di nder nder yi mu ne ko bay gaaw la yëkkati saako bi mu ne ko teyal maa nekk foofu maa nekk fii ba léegi maam Hadj Abdoulaye fi nag ba léegi wax ak Abdoulaye sëriñ euh, la demee ah waaw Abdoulaye yàlla may na ma ko alhamdulilah rabbil alamin ci néeg bi ah, xew yu bëri nañ ma ne ko waa jotaay ba dara fees la tawaan aw karhan ba ndax daa dugal waaye yaakaar naa ne alhamdulilah lépp kenn du ko wax man dox naa ba gis ci benn kayifee boo xam ne dañ ne maam Hadj Abdoulaye ci suuf lañ bind ne nanga mu wax ko rek ci jotaay nit ñi dañoo ba fees yooyu sax dañ ko weesu xaatir rek waaw sëriñ nit ñi ñëw rek nit ñëw leen doon taxaw leen ñëw bu leen taxaw na ñëw porte parole lew na ñeseen doo génn lew na doo génn lew na waaye jëmu ci di suñ mag yi alxaji Taala Jaane di wax ju yàqu wax ju damm nit ku baax la dama amul lu may wax rek te faaw ma wax ci moom kon li may mën a wax mooy ma ne nit ku baax la xam nga liñ miin ci jotaay yi kañ war a war leen teral war a war a war a war a nit ñi dimbale la man ma xëy suba teel bala ma yeewu nit ñëw ne ma enveloppe bi alxaji Taala Jaane moo la ko jox ak lii ak lii ak lii mu ne nga def ko ak ma ne kaw def enveloppe boobu ba léegi maa ko denc ma ne kaw def lii de miinoon ci jotaay yii mooy kay jëlal lii yóbbul ma ko mu tarale ko ay ganam wala sëriñam gàmm jot na fii mu yëg ma ñëw mu ne ma yëg wii defal ma ko ci gàmm gi te bu ko dëkk bi yëg maa ngi maa ngi maa ngi joxe mbóot mu ne buñ ko wax ci jumaa ji boo kenn yëg waaye kenn du ko yëg alaaj du ma ko wax kenn sëriñ bi dafa commencé mu Cheikh Ahmad li wax ci maam Alhaji Abdoulaye tey maanaam dafa dafa dafa mel ni li may ragal ragal bu ma joxoon jaasi moom jaasi moom ndax xarit moom am naa yaakaar tey na xam ne ku ragal ne bu jaasi moom tey ñu ne somb taxawaat na moom am na lu mu def ci man te loolu la monsieur le maire bi wax léegi waaye alhamdulilah yi ñun dañoo yàgg ak ñeseen maa ngi sant yàlla lool ne tudd na Maba tudd na Sayer Mati Maba Jaxu alaaj baabu nee maw moom ak suñ maam ñoo àndoon jógee Fuuta di ay doomi bàyyi mosu ñoo tàggoog ñeseen ba fii ñu toog lu ñeseen am rek mos nañ hmm. tey hmm. benn xissa ma joxe microphone Baye El Hadj Mouhamadou mooy xalifa Baye maam El Hadj Mouhamad maam El Hadj fii ci Medina professeur Ousmane Sow sa nett naa ko lu ah. bi mu wàccee indi ko Medina Baye teg ko Baye Souley la taxaw maa ngi taxaw gannaaw takkusaan Pape Bass ñu koo xam ne wala Mame pour mu gën a leer mu ne professeur Ousmane Sow mii dee tëddee. maamam àndoon na ak maam Alxaaj Ablaay dem fii Koote Meete mooy maam yi professeur Ousmane Sow mu ne bañ demee ama ndaw ku yi wala yolli bagage yi maam Alxaaj Ablaay jël ko dem bagage yëpp ca aju jafe yooyu góor gi Sow bi demee ba ak di jeex ñuy wàññi mu ne ko Euh, alaaji faw ñu nga dellu Saalum te jël nañ lépp loolu tey nga dee lépp rek lépp passeport beeg ak yëmbal bi dara amut te du tey 1910 yàgg na mu ne ko te amul place gisuñ ko ñuy dimbale gisuñ dara mu ne ko te faw ñu dem yow faw nga ñibbi waaw kon su may nettali de ñu ngi sëñ Ousmane Sow professeur Ousmane Sow rahmatullahi alayhi mu ne ko xam nga lu alaaji Abdoulaye yow boo ñëwee Saalum lu bëri yàqu wala lépp yàqu mu ne ko taman bu ma demul dara du yàqu te réew mi ba léegi ñu ngi jàpp ay may jàpp man góor gi Sow jaay ma ci naar yi jël njëg gi jël ko daf ko di ndax yow boo yëgul lu bëri yàqu man boo ma jaayee ma toog fii dara du yàqu nañ def noonu yow faw nga parenthèse ana ñi pare tey fi ñu toog fi ñu toog ana ñi nga xam ne tey bu loola doon nii tey nii ñu def na góor gi sa jaay ci dama rek xam jaay ma nga dem ñibbi man bu ma ñibbi dara du yàqu yow boo ñibbi lu bëri yàqu. sëñ bi loolu la doon dëkk. waaye ànd ak ku mat a ànd ak mu ne ko déedéet ñun ñëpp ay ñibbi. kese ba la ci topp bëri na. mais li ma tax a jóg mooy loolu. buur Màkka moo am ñu soxla woon di gëstu di gëstu ba fekk ñu ne ko góor gu ñëw lii de ñuy gis chaque chaque jour balaa sàngam indi leen ko. ñu indi ko xamee ne ku buur soxla. ba fii may wax ak yéen nii. ni ko waxee léegi ne maamam Hadj Abdoulaye moo ne ko ibrahima Ibra ba buñ tuddé mag ñu tuddé ibrahima fi may wax ak yéen së sëtam Cheikh Mouhamadul Mahi Al Khalifa ma nga fële ci Soudan ci invitation général Abdel fatah Burhan président conseil de souveraineté pour Soudan ñu tagal ko programme

moom nag dégg naa ko fii ba mu ne man maa xim man dama yëgu sama bopp moo tax yëgu ma sama bopp yëgu ma xam naa ne dana régler problème la bëri. ñu ne dans les années 60 la bàyyi ci suuf na ko jox ma jox ma tariqa tijaaniya te moo doon président Soudan. li may wax propagande ma. maa ngi wax ci maam Alxaji Abdoulaye ba léegi. loolu taxu ñoo jóg waaye mbokk yi góor googu ci côté Niété gii toogoon na ko Alaaji Abdoulaye jaay ma jël njëg gi paas ci ñibbi. jaay ma jël njëg gi baas ci ñibbi tegal ma foofu sabaaram 1937 bàyyi di aji ànd ak maam Babacar kenn ci loolu maam Alhaji Abdoulaye ak na ko Ibra bis boo demee ba xaw a am loolu wala loo ragal ci biir bato bi wala ci leneen bay dina ñëw 1937 ci zahir kañ la maam El Hadj Abdoulaye génn àdduna. 22 mu ne 1922. ba 1937 Sidi Ali Cissé moo bind. ci muqaddima bu doon wax ci Baye. ba ci 1937. mu ne ca bato ba ba Baye duggee dafa mel ni ku xaw bato bi ñu ne saalu saalu saalu saalu xamul ndox mu ne bato bi xaw a yëngu mel ni ku xaw miir. neer gëmmu. bàyyi la joxaam ak si Babacar Diabdoulaye ànd ak ñeneen xisaal lu jiw lu nit ñu rafet ñu ànd ak bay waaw 1922 ñu ne góor bi dem na nga dugg bato fii dem Las Palmas war a dem Rabat Casa nangam dugg ci kañ man mii dalee santuma ñes dali maa gën a solo ci ma gi fii mën naa ñëw xanaa war ko gëm <laughs> waaye 1922 ba 1937 ci biir bato ba waaw xanaa sëriñ bi mën naa feeñaat fii nag ñi fi am problème mu réglé seen i loolu mën ta nag waaw la góor góor waxoon nag ne jaay ma benn ñaareel ba la maam ba ko waxoon si livre ne ko boo amee jafe-jafe bay dina ñëw te bay ñëwoon na damaa bëggoon nag ñi nga xam ne gën nañ lii may wax ne dama ko jottali parce que man damay wax gis nga lii jàkkaarloog man ni maanaam sax mu ngi am live la maanaam ña nekk Trinidad wala Odessa ca Ukraine ca guerre ba sax maanaam ñuy seetaan moo tax li may wax naa la ki andiw andiw andiw ba mu jeex nga génn jiw set wécc waaye nag gëm naa ko en effet gëm naa ne maa wax ak Abdoulaye ba fii ñu toog deux mille vingt fii ci buntu laaj daara jaane bii ku am problème jafe-jafe dëggu nam feeñe woon fële ca 1937 muy feeñoo la ko fii problème boo mën a am nag dama laay dëgg la damay bàyyi sax ma jógee fii ñu ne gendarme kat danoon nangu rek ci boppam la woon nag mais mën naa ci wax lu bëri parce que mu tukkikat la billahi fanaan naa ci conteneur juróom-benni fan xanaa boobu du Sénégal xanaa Sénégal dama fanaan ci conteneur billahi fanaan naa ci conteneur juróom ci désert di lay des laa ilaaha illa hu def naa ñetti fan soixante douze heures te exagéré wu ma billaahi uqsimu billah waaye si la yamaay ay wax nelawu ma ñetti fan xanaa boobu yombut am na lu xew xanaa du Sénégal Sénégal wax naa fu mu ne la nga mais moo am nguur gu ma woo fii mu ne ma déedéet dara du xew dara du xew incha allah ci barke Baay dara du xew ah waaye lii dellu si naa dem naa demet demet demet te yooyu bàyyi moom leen Mawalaj Saalum Mawalaj Maas ne leen di leen teewlu seen seen istahdiru himmata cheikhikum teewlu leen seen yitte laa koy mën a firndeel seen yitte sëriñ. Hmm. ana ñu bëgg a teewlu tey Mawalaj Abdoulaye mii sëriñ bii doon wax léegi jarul sax Mawalaj Abdoulaye mii sëriñ bi doon wax Mawalaj Abdoulaye mii toog rek. boo ko daanan maa ngi luy sa soxla cër yaa ngi may ma dox la naataange loolu wóor na waa réew mi fo غمور موارد ndeysaan moo tax ci Égypte ñëpp toog kii ne ana mutaxas a muhaddis la kii ne ana faqiihun kii ne ana balaagiyun kii ne ana usuliyun kàngaal ni ab ndaw ca jamono jooju góor gi ne tekk te toog yaa ngi ne mu xeet toog ne bi bii yéen yëpp tuura man dama ne sax jarul sax di ci teg leen gerte boobu yëpp tuura rek jarul sax xuraan wala déedéet fi tafsiru xuraan déedéet dëggu ko foofu rek. yàddul tuulaa rek ci lépp. Mm-hmm. jarul sax ci tafsir alxuraan al karim loolu la ngay wax ngeen daare. Mm-hmm. wala ñooy charia mais ñooy xam ne ba ne yàddul tuulaa rek jeex na. sama loxo ne ci kaw moom la sëriñ bi doon wax rek. wala dëgg la. boo boo toogee Sénégal fii muy yow bi toog fii moom wax mën a xew dana yor sëriñ bi. sëriñ bi dèjà réparable ji mu soobee maye na ko léegi mais da ngay génn foo ne ñoom. xamuñu Sénégal fu mu fa nee sax boo demee Sénégal Google la ñuy jëm xool géolocalisation. Mhm. nga am problème am jafe-jafe wala waaj war a dem ci jotaay nga teewluñ te rajo bi laay nga xool la xew. kon nag mbokk yi dama bëggoon balaa jëmm ji di dem yàlla fa jaay jéeg. wax nga am ñaar bi de sa amin ñoo ñu téye ko ñaanal ko. sëriñ bi njëkk a jullee kan moo ma koy fàttali. waaw moo waa ji nee na inna lazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata. sëriñ bi fàttali ma constitution article numéro un waxal ma ko ma dégg. ma ne ko ku ma war a fàttali ma inna lazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata. te sëriñ bi ne inna lazina yatluuna kitaaballahi. bu doon loo am fa xool rek am nga la ko dégg sëriñ bi. ba léegi rek alxuraan nee nañ nee na seen ñett la kitaaballah wa aqaamu salaat julli wa anfaqu wa aqaamu salaat julli wa anfaqu dundale génne serran wa alaaniya ma dégg naa ko alaaniya lu muy firi sëriñ bi waaw ma ne taalibe wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan te yarjuna tijaaratan jooja sax tijaaratan lan tabuura li yow fi yow mu juróom léegi nag ñu ne leen wax ji dama wax ji wax ji wax ji jëf fu nekk mooy problème ak yàlla faj aajo yi te problème yi bëri naa te li koy faj fu nekk nii mooy delluwaat bu ca booy booy rek delluwaat ci mag ñi liggéeyal leen ñu gërëm ñu lépp baax ndax yàlla laqad radiyallahu anhum keroog la lépp sotti ngërmaane nag moom dañ koy amee ci ñàq ak ñukk wala benn ci ñoom ñaar ñu bëgg jaayante ak jëmmu jooja góor ga soo waxoon ne ko jaay ma te ñibbi wala góor googu maam Babacar waxoon bàyyi ne ko boo amee dara lu la jaaxal bay dana ñëw ñi gëm loolu ba fii ñu toog nii ñi gëm loolu nag toog leen bu kenn maslaha ak man xam naa sa kenn ruusul ma waaye bu ma kenn ruus bu kenn rus alaaj taala jàmme wala bu kenn rus sëriñ bi ñaar rek lay waxale ki nekk ci maqaamam góor gi sow mooma ak maam Babacar mooma ne ko lu xaw rek bay dina ñëw ñi amul sikki sàkk na ñi gëmul li may wax wala ñi am dara ci seen poche te mënuñ koo génne yàlla wàccee na leen mbir mi xaw ma lu ci seen poche waaye ak ma bëgg ñëpp jëriñu tey ak maa bëgg tey ñaari maxaama yooyu nga jël ci benn rek dëggu ci ci sa nga ñëw. yàlla moo ne sirran wa alaaniya benn junne bi